beneen ak beneen ak ñi ci bokkut ak ñëpp ñëpp samay nit lan mais date bi nga gis ma ma jox ko caalis lu lu ma war la ndax nit bu fekkee ne da nga da jël benn dat muy le 8 août euh, ma waran ci tëgg ay combat moom mu tëgg combat bi nga xam ni moo dox ci diggante Tapha ak Boy Niang nekk combat bu mag macha allah xëy na sax combat du ndaw parce que combat combat la rek mais combat yooyu wax dëgg yàlla comme ñun suñu combat man ko mën nañ ko déplacer yóbbu ko euh, Ibamar moo tax ñu jël date bi jox ko ko ci xool bu sedd guy ndax tamit làmb moom jàppalante rek la. àdduna mm-hmm. jàppalante rek moo fi nekk. ca euh, ñun ñëpp benn lan promoteur yi ñëpp benn lan kenn wërtoo xool sa morom di nekk jafe-jafe rawatina moom Thialis mi parce que ba ci làmb ba léegi amul te kenn xaar ma yàlla kum romb da lay jàmm la lay jox di jox la ñaari loxo nuyu la respecté la kon na kooku bu demee ba yàlla dogal moo xaw a am tuuti difficulté date ñu am dat boo xam ne war nañ ko ko mën a jox te du te du du du du wàññ suñu suñu suñu organisation dara sunu événement dara dañ ko koy jox man maa ko jox ci xol bu sedd guyu ci ferte yaa ko ko jox ci xol bu sedd guy muy geste ba nga xamante ne bii amateur yu bëri dinañ ko saluer di gest ba nga xamante ne bii tamit amateur yu bëri danañ ko danañ ko rafetlu amul lenn la nga xamante ne bii condition boo ko tegaloon bi nga koy jox dat date non du du ma doo ko tegal benn condition parce que nit ki tamit man dama bi ma koy jox yàlla mi tim xam na ni dama ma fekk may añ bi ma wooyee wax ma ko dama ni moom mii dama ni jërutoon sa ngeen may woo man ngeen maa woo rek ni ma nàngam laa bëgg ma defal leen ko kon jërutoon may déplacé wu di ñëw ndax man dama nekk nit koo xam ni man taaliba laa am na lu bari loo xam ne du ma ko xëccoo man mosuma am ak benn promoteur xaar ma yàlla yàlla loolu la dogal nit nekk nag ak ni la yàlla bindee. man loolu la ma yàlla bindee eh, yàlla dogal nag moom mii nag wax dëgg yàlla daaw rek sama benn naataango tudde na ko làmb mu def ci lam ci war a def lépp te loolu lépp ak mbaaxte la muy Sambay Fall di sama xarit bu dégg bëccëg ñooy ànd xam nga am na acte yoo xam ne boo xasee commencé di ko def ci ci aw askan wala ay ay xarit leneen loo fa bëgg bu la jafee war na noo xoolaat ñooñu moo tax bi mu bëggee date bi ñu ni nan jël date ma ni naa jël date bi jébbal ko ko ay kilifa woo ma moom mu bokk ci maa ngi gërëm nag euh, promoteur yëpp di jiital ci gërëm li suñu président Pape Abdou Fall maa ngi koy jiital ci ngërëm li di gërëm Alain Ndiaye sponsor bi nga xam ne moo ko moo moo moo koy gunge ci làmb ji ñun ñi ñëpp moo nuy gungee sax wax dëgg yàlla parce que nit ku baax la bàyyiwul làmb mu soox saa bu boo nee Aziz bàyyi na làmb jour boobu la gën a jàpp làmb lépp ak mbaaxam la man naa téye xaalisam di ko dugal ci leneen mais da koy dugal ci làmb ngir jàppale làmb jàppale euh, euh, promoteurs yi jàppale mbër yi ñoo ngi koy sant di ko gërëm di gërëm nag euh, promoteurs yi yëpp du ma lim nag ku lim juum di gërëm ménagères yi ndax sama yaay rek ñoo fi nekk ku ci mel tonton Burxaan mi ku ci mel tonton Max ak ñëpp vraiment ñoo ngi gërëm ñëpp di gërëm prince bi di gërëm waa CNG ndax wax dëgg yàlla bi ñëwee yom yombal nañu ko yombal boo xam ni danoo ñëw rek amul ma signé won ni man maa jox maa joxe sama date def sama signature ci xol bu sedd guyu kon nag loolu maa ngi ci am fierté di ko ñaanal moom it mu organiser ci jàmm lépp lu ci bëgg suñu borom defal ko ko ci darajey Seydina Mohamed jërëjëf ñu gis la yow tamit nga initier benn tournoi benn tournoi yi nga xamante ne bi yu am solo la mm. tudde ko weekend mm. euh, xam sa xam sa euh, xam sa maire weekend mbapat xam sa maire weekend weekend mbapat xam sa maire xam sa maire lan moo la ci dugal waaw weekend mbapat xam maire boo gisee ma ma ma ma ma koy organisé. xam nga làmb moom dan ne ku yokkul yaa yi te yaakaar naa huit ans boo ko nekkee ci làmb chaque année nga dagg licence. mosoo ne balance. kooku yaakaar naa bokk nga ci làmb. kon nekkutoo gan. weekend mbapat boo gisee ma kii ko damaa jël cent pour cent yi jëluma par écrit parce que écrit boo jëlee par écrit day bari. damaa jël cent pour cent yi kenn ku ci ne indil ma cinq mbër. ma koy def chaque samedi. ci ci gox yi. gox bu ne dama fay tëgg mbapat ci kàttanu yàlla chaque samedi ci kàttanu yàlla loolu mooy weekend mbapat xam sa maire gox boo dem maire bu nga koy tuddee mu mu mu mu mu mu mu mu recevoir euh, euh, équipe bam par équipe la daal par équipe la hmm. équipe bu recevoir sa maire lañ koy tuddee hmm. yeneen mbër yi ñëw par par quatre quatre équipes ñooy compétirandoo hmm. waaw ñu def final bi macha allah loolu bu ñu ko defee defuñu ko ngir dara ndax am na xale yoo xam ni parce que ñu ngi ko def ci quatre-vingt-dix kilos jëm suuf xam nga ñooñu ay xale lan. ñoo xam ni dañuy mënuñu am ay combat. yaa ngi dégg parce que làmb ji xañ na promoteur yi dolleeku nan mais taxul tamit mu doy. Mm. buñ sañoon promoteur yi dañuy gën a bari. Mm. ndax xale yi ñu ngi entraîné duñ bëriwuñ. ba tax na daal vraiment. ñu yokk làmp daal lu lu yokk làmb daal moo tax ñu def loolu weekend ba xam sa maire. ñu ngi ci boo Sénégal. gën nga yéene commencé. la le 19 juin laa ko bëgg a commencé. maa ngi ko incha allahu rabbi maa ngi commencé Mbaaw. war ko tuddee monsieur le maire Ablaye Pouy. Mm-hmm. ñoo ngi ko ciy xaar moom it moom mooy mooy ubbi làng gi daal mooy ubbi carte gi. Ablaye Pouy maire Mbaaw. jaajëf merci beaucoup merci beaucoup merci